pédophilie ak viol bari na lool euh, ñu mën koo nemmiku ci euh, ñi nga xam ne ñoo yar ñoo yar xale yi di leen jàngal euh, yow loolu en tant que sénégalais ban jàngal nga ci am. waaw loo loolu moom li ma si wax du bari quoi parce que secteur boo dem rek am na am na am na am na ñu nekk si yoon am na ñoo xamante ne dañuy dañuy mbubboo secteur ba te fekk ne nekkuñ te fekk ne bokkuñu si quoi waaw léegi li ma ci wax mooy ñuy tëddee xale yi loolu moom wax dëgg yàlla amul kenn kenn kenn ku koy rafetlu loolu waxuma la waxuma la xale si mais mais góor sax góor ngay tëddee góor loolu rek loolu rek loolu rek beneen affaire la loolu yàlla suñu borom sax moom moo ko moom moo ko moom moo ko njëkkat teg ci alquran moo ko indi ci alquran muy sóoratu loot boo demee yónte yàlla loot ay jamonoom ay góor jigéen moom ñoo fa ñoo fa bëri woon te yàlla sunu borom ah, ñëw ñu indi leen ay sanction teg leen sunu borom moom moo njëkk a aayalul waxantuma laa ki nga xamante ne si moom moom moom moom dane daara lay daara la jàngale moo xam daara la yor moo xam si si école tubaab bi la nekk moo xam si si secteur bi la moo xam moo xam si prison bi la nekk parce que am na yoo xamante ne si parce que c'est pas jaaduwul quoi parce que tamit yow yow yow ah, en al que alquran téere bu sel nga teg ko nga woo ay xale nga ne nga nit ñi seen ay doom jox la nga ne da leen di jàngal quoi nga ku di def leneen si loo xamante ne si nii tudd ko si làmmiñ sax sax dafa ñaaw quoi si sëriñ daara ak keneen ku dul sëriñ daara quoi man moom damay défendre sëriñ daara yi fu ma toll moom wax dëgg yàlla parce que man si daara laa jaar daara laa jànge daara laa si daara laa daara moom moo ma def li ma doon waaw parce que fi fa ma nekkoon muy daara jama nekkoon te daara yi ma jaar bëri na jaar naa daara Iran jaar naa daara kokki laa jógee ñëw ñëw ñëw daara Iran après mais yooyu yëpp amu fa waaw kon ndakaaru fii parce que lii problème bi ndakaaru fii nii ñu bëri dañ naan dañuy jàngale mais jàngale wuñu ndakaaru fii nii parce que lii problème bi la preuve mooy xale mooy xale yi ngay gis nii rek 24 heures sur vint 24 xale yi dañ koy yalwaan te boo demee kokki amul yalwaan kokki amul yalwaan da ngay jàng jàng bi heure la huit heures huit heures ngay commencé jàng midi ngay wàcc deux heures pile nga commencé waat jàng xam nga kon foofu yalwaan mënu fa am lekk da ngay naan Serigne Mbuub mi ngi may dégg Serigne Mbuub CCBM mooy indi xéewal yi ci daara ji chaque jour moom mooy gaare xéewal yi ak ak ñeneen ñu dul Serigne Mbuub ñoo xam ne fa leen jaar même ba si ñun ñii am nañ chaque année dañuy dañuy participer di corriger pour pour dundal daara ji. mais boo gisee nit ñi te en ñi koy def ñu si bëri dëkkuñ ci Sénégal ñu si bari ay Pula Fuuta lañ ñu si bëri ay Guinée lañ dëkk wala Mali parce que boo boo xoolee ba ay làkkat la ñu doon xale yi gis ñu jaar ci mbedd mi fi maa ngay gis gis bi ma def lu ci war waroon def rek ñu kii ñu teg la ay daan ndax am na ñoo xam ne ñu bëri tamit nekk ñu nekk ñu sëriñ te yow bi yaay bi tamit bala ngaa joxe sa doom war ngaa xam ci loxo yoo koy teg man sama doom jàng ba wàcc alxuraan ñaari yoon wante ci sëriñ yu baax laa ko teg di ko fayal par weer di leen fayal internat weer bu dee ñeenti junni wante sëriñ daara lu ma téeméeri xale nga jox ko sëriñ boo xam ne tamit xamoo fu mu jógee da ngay dégg turu sëriñ rek yenn yi tamit man waajur yi laa ko teg teguma ko sëriñ te sëriñ yi daan baax ñoo ngi baax ba léegi am na tubaab yoo xam ne tamit ak yenn sëriñ yi dañuy complot tamit pour yàq deru alxuraan te mënuñu koo tilimal ndax alxuraan moom yàlla moo ko teral ba pare kenn mënu koo tilimal ku ci lu ci bokk rek yàlla dina la weer sëriñ boobu ko def noonu ñaar fukki at ba léegi muy soog a feeñ yàllaa ko weer ndax alxuraan kenn du boo ko tilimalee yow yaay tilimal yàllaa ko weer lu ci yoon santaane yoon dem ko ci da xoolal ñaar fukki xale ak nangam nga yàq leen xoolal loolu xa ñooñu tamit dem yàqaat ñeneen réew mi kañ lay baax surtout ci ay góor ah li réew mi kañ lay baax te loolu la yàlla gën a bañ ci àddina te sëriñ boobu moom rey dong moo dagan ci moom loolu ñu koy ñaawlu di ko méttilu di ko naqarlu wax dëgg yàlla daara bu ñuy wax daara bu njëkk ak sëriñu daara maanaam dafa am ay ay ay ay firnde yu ñu war di joxe wax dëgg yàlla jamono ji bu ñu gis ne ay sëriñu daara wala ay taalibe ay daara te ñun ñu ñu doonoon ay ndongo daara juddu ci yaru ci mu nampatal ñu yar ñu éduqué ñu lépp lu ñu nekk tey daara def ñu ko loolu daf ñuy naqari lool di ko ñaawlu bu baax a baax di ko méttilu di lancer appel it bi wax dëgg yàlla mu def ci liggéey liggéey bu ci war a def na mooy saytu ñen ñooy sëriñu daara ak ñen ñooy sëriñu daara ak ñu war a nekk sëriñu daara ndax jamono ji nit ku nekk rek ñëw Ndakaaru ubbi sa ruq ne sëriñu daara wala ñu ne la ab taalibe la wax dëgg yàlla dafa xaw a doy waar ndax jàng léegi nit mën a jàngay yortu na yaatu na ndax internat yaa ngi fi ku mel ne oustaz ah, ah, oustaz Alioune Sall internat bi macha allah ay ñoom Adi Niass wax wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey daaru loo xam ne wax dëgg yàlla ku bëgg sa jàng am na ko war a jàngee waaye am na loo xam ne ñu ngi koy remarqué ndax des fois ñuy gis ay taalibe ñu tuddee leen ay taalibe ñu nekk ci rue yi ñu bëri di ci ñaxtu di ci wax war nañoo xool jàngat boobu quoi parce que taalibe yooyu noonu ñu nekk ci rue yi boo xoolee majeure partie bi dëkkuñ Sénégal téeméeri nit yoo ci jël quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp duñ ay Sénégal loolu pour man état moo ci war a jug ndax mënu soo dem ci benn réew ay sénégalais nekk foofu jël seeni doom yóbbu leen foofu di leen ulloo ay xaalis di mbubboo daayira di yàq di yàq daara ndax alxuraan méritoon na leneen quoi wax dëgg yàlla alxuraan méritoon na leneen loo xam ne ñu nekk fii di tudd alxuraan ak ñu koy jàngale di tudd yoo xamante ni ay tëddee ay ndaw ay góor wala ay jigéen loolu moom wax dëgg yàlla ñaaw na trop métti lu nañ ko trop trop trop loolu moom ñu koy ñaawlu di ko méttilu en tant que taalibe en tant que woon nitu daara en tant que koo xamante ni nii lépp loo xamante ni nañ ko ci àddina bi daara moo ko def lool moom ñaawlu nañ ko trop ñu koy ñaawlu bu baax baax di ñaan président bu fi ne mu def ci liggéey bu baax a baax. xanaa ñaawlu ko trop loolu moom rafetlu ma ko moom ndax ñun njaboot yi nit amul lu dul njabootam te léegi boo xëyee liggéey maanaam sa xel sax du dal ndax yow ñun njaboot yi bu ñu xëyee dañ ah na ma sama doom ji naa ko yóbbu daara pour lan mu amee fa ah, xam-xam. pour man la ëllëg man la jariñ léegi bu dee jigéen tamit nga ne naa ko yóbbu école wala naa ko yóbbu daara loolu yëpp ñu sa njaboot rek lañ yaakaar bu ñu xëy di dang dangi fii njaboot rek moom lañ yaakaar léegi tey bu dee ñoom ña nga xam ne moom lañ yaakaar ñu jox leen ko ñoom ñoo leen di indi benn jafe-jafe tamit loolu tamit rafetlu ma ko moom wax dëgg yàlla. parent yi si boppam ni ñuy tàggatee seen doom yi moo des ba pare dañ leen a dimbaliwul ñoom tamit. parce que liñ leen war a dimbalee mooy état du fekkoon ku def loolu ñu jàpp la teg la si yoon loolu dootul am xam nga dañuy bàyyi xale yu ndaw yi léeg-léeg ñu sol loo xam ne naka sudul noonu la su ko defee góor dafa am luy nelaw si moom te saa bu gisee yenn yi rek du yeewoo rek li mu bëgg a def da koy def moo tax duñ la yaree si diine loolu lépp yàlla dina la dimbali ba doo ko def. ñaawlu ko lool ba fu ñaawlu mën a yem ndax loolu moom dafa doon loo xam ne du ñaaw la daal loo xam ne duur wàllu jullit xale yoo xam ne dañ leen jël ñu leen jur ay jullit lañu dañ leen jur jël leen yóbbu leen ci daara pour def ci ñoom diine ñu jël xale yooyu di yàq leen yàq seen avenir dugal leen ci leneen loo xam ne du wàllu sax diine ñaawlu naa ko torop ba ci kanam yàlla te su ma sañoon justice bi dina jël bépp matuwaay def ci lépp lu mu ci war a def ba mu sës bu ñu mayee dara dara dara lépp nañ topp yoon ba mu sës parce que ñi def loolu bu ñu loon toppee ba mu sës teg leen lu metti dina tax ñeneen dinañ xam seen bopp suñu bëggee def lu bon sax dinañ ragal nekk lii bu ñu ko defee daan yu metti yi moo leen ci fekk ba tax duñ ko def. vraiment ñaaw na quoi na trop parce que nga jël sa doom yóbbu ko pour mu pour mu sàq loo xam ne xam-xam la xam ba ba lu ci mel ne sport. xam nga jëlee ci déception bu bu toll noonu c'est grave quoi pour man metti na trop waaw mais lépp loo gis nag ndaxam am lu ko waral rek c'est que ñun étranger li leen may ci réew mi dafa dafa bëri trop quoi étranger yi am nañ lépp ci réew mi te ñun ñu fi dëkk am ñu lool parce que li xew fii nii nii xale yooyu li leen def fii bu la bu la bu leeroon ni tey ci ci dëkku nasaraan bi lañ ko defee du yegg si fii sax kon da ciy déggaat leneen. kon sénégalais yi bu ñuy joxe seen doom nañ xool ñi leen ñi ñi ñu koy jox waa comme li femme bi wax parce que doom doo ko jël même bu bëggee football na nga xool école football sénégalais bi nga xam nga dugal ko fa mais bul gis nit étant tubaab rek yow nga nga jàpp tubaab boobu moo mën a jëmale sa kanam sa doom sa kanam non du loolu yàlla suñu borom moo yor wërsëgu nit moom mooy jëmale nit kanam mais nekkul tubaab mooy jël nit ko ñuul yóbbu ko ci kanam ni ñu ñuul ñoo war a gëmaat seen bopp rek pour man. lan nga foog ni moo war nekk daan bi nga xam ne moom la ñuy teg ñi nga xam ne ñooy sàkku xale yi ah xanaa ñu wax ak ñoom rek ñu changé ndax tamit ñun yaa ñoom ay sénégalais lañ bu doon ay étranger sax nga ni ñoom waratuñu dugg ci réew mi ndax ndax dëkk bi nag bu dëgg dee dëgg dëkk bi li fi nekk léegi kenn mësu ko gis kenn mësu ko gis ndax ñun ñii xëy di liggéey sax boo xëyee liggéey sa xel du dal sa njaboot ga nga bàyyi ginnaaw te loolu tamit lépp lu jóg dugg ci dëkk bi la kon dañoo war a xool lii dugg ci dëkk bi ak lii génn ci dëkk bi ñun suñu xel dalatu delul guddi delul bëccëg da ngay tëdd fii dégg ñu ne ah kii da jam nañ ko sang dëkk sàngam kii da rey nañ ko dëkk sangam lool ci lan la bokk. to taxawaayu état moom mooy moom mooy moom mooy moo ñu seggaat de moo ñu segg daara yi xool ñi nga xamante ne si ñooy daara ñi nga xam ne dañu mbubboo woo daara loolu moom secteur yëpp la secteur li ma la wax rek mooy secteur boo dem am na ñu fay ñuy gàmm ak ñuy raas jëm du benn quoi. xam loolu loolu la tamit loolu mooy état mooy li par état li taxawaay moom mooy mu xool daara yi seggaat daara yi kon na ñoom seen seen daar dañ leen a war a rey exemple maanaam dañ leen a war a rey carrément dañ leen a war a rey maanaam si gàttal quoi dañ leen a war a parce que jàpp ay xale yu ndaw tamit di leen tëddee tamit loolu c'est pas normal quoi parce que tamit parce Sénégal tamit mooy dëkk boo xamante ne si da ngay def lu la neex tamit xam nga mooy loolu dara du la ci fekk quoi. xanaa xanaa daara int kii daan yoo xam ne rey rek. rey ndax bu gis nga bu fekkoon ku rey ñu rey la ku def lu bon ñu ñu teg la daan yi méttee métti kon li yëpp dootul amati wante yow tey boo defee lu bon suba nga jël avocat ñu bàyyi la du jariñ dara wante bu dee boo reyee ñu rey boo sàccee ñu dagg sa loxo te ñun ay jullit lañu ñun danoo war a xam ne ñun ay jullit lañu carrément ñuy àtte àtte jullit loolu laa am lu may wax wasalaam sëriñ baax yi moom kenn mënta yàq seen mais yenn sëriñ ak tubaab bi ñoo lëkkaloo benn la nu baaxuñu. lu bon lu li tubaab yi bëgg moom lañ bëgg a def suñu réew te loolu mënul nekk ndax ñun ay doomu jullit lañu wasalaam man sama doom jàng na ba wàcc alxuraan ñaari yoon waaw. loolu moom rafetul loolu dadul yoon sax dadul yoon loolu moom jekkul rafetul loolu moom dañ fee war a jël ay mesures waaw ñooñu koy kun si jàpp dañ la war a mën a tëj à jarul sax ñu lay bàyyi parce que. pombiteer benn pombiteer bu nëb si saaku su yàggee dina nëbal la fa nekk lépp mais du fekkee écarté nan la loolu dootul am. su ma sañoon daal Macky Sall ci boppam bu fekkoon dina ma dégg man na gën a góor góor lu am taxawaay ci xale yi parce que xale yi ñooy avenir u ëllëg ah, taxawu ci seen wàllu jàng tamit ci ni ñuy war a jàngee parce que tamit mbirum daara dañu mel ni dañ ko farale ginnaaw. te moom moo waroon a nekk priorité bi jàng xale yi nga xam ne ay jullit lañ ñu dañ leen war a jàngal seen diine te li ñeen di jàngalee Macky Sall daf ci am part de responsabilité bu baax a baax war na taxaw daara yi tabax daara yu xam ne yu normal la teg fa jàngalekat yu normal yu ñu formé yoo xam ne ay jullit la ñuy doon saytu nag ñi nga xam ne ñoo fay nekk ba xam yan qualité nit la ñu xam nga nit mun nga nekk jullit wala nga ne jullit nga ba pare te doo doxalee doxalinu jullit ñu ñu war a lañu parce que ñooñu ay formateur lañu du dëgg li xew daal man vraiment en tant que yaay ñaawlu naa ko bu baax a baax a baax. ñi saako xale yi nag daanañ leen war a teg moom kooku moom naa ko bàyyi ak loi bi rek ndax dëkk bi am na yoon waaw su ma si waxee day métti ndax man moom ku mel noonu moom mën nañ la tëj peine de mort sax mën nañ la ko tëj waaw parce que xale bu ndaw boo ko tëddee yàq nga avenir am saa yu toogee xelam si dem. waaw parce que loolu la quoi ñooñu moom war nañ leen daan ay daan yu sévère mais justice am na na leen teg si yoon waaw yoon nag na def liggéeyam parce que lii moom bu ñu ko bàyyam sedd beneen yoon lu gën a yéeme mën na am waaw na justice def liggéeyam xam xale yi dem hôpital faju xam ma loolu laa gis daal jàmm am daal